jàngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futur Média xibaaru digg bëccëg bi ponk yi ca gën a fës l'armée bu Sénégal ak way fupp euh, jot nañu laale nag ci ñees yaa loole nag aju nag ci xeex wàllug euh, kaaraange ko foofee dimbali askan wi bañ mën a jotee ci kaaraange waaye benn doomu aadama kon ñàkk na bakkanam euh, ci cong googe ma nga féete nag kon ci larme bi jàpp leen ni kon armée bi ñoom ñoo am ku faatu ci seen wet ñi soxal rebelle nag am na ca ñaar ñoo xamante ne teg nañu leen loxo ñett nag euh, toolu yàmba yàq nañu ko ba ci ay euh, jumtukaay lu ci mel ni ngànnaay yoo xamante ne teg nañu ko loxo xibaar bi nag DIRPA moo ko euh, dëggal askan wa nekk ca commune bu Réfane ca Bambey ñoom nag mer nañu lool gannaaw rek benn hangar boo xamante ne dañu ko doon toj ñu ne nag hangar boobee bañ ko fa tabaxee yàgg na toj nañu ko tey jii te waxuñu leen lenn lu ca jëm waaye keroog ba ñu koy def nag gendarme yi ñoo taxawoon rek ngir loolee mën a antu ca Linguère moom askanu Thiel mer nañu lool waaye ñoom courant la ñuy sàkku rek ñu defal leen ko euh, kon ci seen dëkk boobee waaye tamit ay euh, jumtukaay ci mel ni poste de euh, gendarmerie mouvement góomu yaakaare ca Matam ñoom ña ngay waajal doxub ñaxtu bu yaatu nee ñu fukki fan ak ñaar lay doon ci weeru mars ngir nag kilifa yi gestu leen ca jafe-jafe yi ñuy dund bokk na ci ñàkkum jumtukaay tali naka noonu kër docteur ba fa nekk tamit nee nañ amul dara ci jumtukaay daañu wax nag ci njaayum gerte mi askan wa nga xamante ne ñoo nekk ca ñaaxaar rawatina ak baykat ñoom ña ngay ñaxtu ndax nee nañ bi campagne gënu koo bon tey tamit njëg li nga xamante ni moom la nguurug Sénégal jàppoon ne war nañ koo jaay kilo gerte gi njëg bi nag kon néew na ba jéggi dayooy ñoom jaaykat yooyu ñoom baykat yooyu ñu ne nag amul dara loo xamante ni kon ah, tàmbali nañ koo jaay ci seen gerte googee lii daan ci toftal xët yu njëkk yu yéene kaay bu ngeen taaxeeloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi jaa ngeen def ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaar yi ñu tàmbali ko ak ni ñu ko waxee woon ci ponk yi muy nag laale gi nga xamante ni am na ci diggante l'armée bi ak ay way fipp fële ca commune bu Niassia ba kenn nag ñàkk ca bakkanam ca l'armée ba la féete congo googee nag maanaam jaamarloo bi mi ngi aju rek ci fexe nag ba askan way yeewoo ca commune boobee mën a jote ci wàllu kaaraange gi ci fipp yi nag am na ci ñett ñoo xamante ne kon larme bi teg na leen loxo ñetti toolu yàmba yàq nañu ko boole kook ngànnaay yoo xamante ne l'armée ba euh, teg na ko loxo DIRPA moo fësal boobee euh, xibaar jaarale ko ci ab euh, bataaxal dinañ ci delsiwaat ñu dem ba Linguère ak askan wi yeewoo ca cel dëkk boobee nag ñoom danoo mer loor li ko waral nee nañ amuñu ay jumtukaay ñàkk pa kaaraange ga moom doon na loo xamante ne foofee lu ñu fa nemmeeku la kurang waxi nopp ba tax na tey daal ña ngay sàkk ku leen mën dimbali ci ab poste de gendarmerie ñu daal jël nee lu ko mooy nag wooteeg faluk njiitu waxtaan ci banque seen yoxo ñu teewlu euh, Vieux Guèye moom moo wax ci seen tur euh, ci micro Modou Mbaye euh, depuis bi loolu amee ba léegi ñun Thiel dañ fi am jafe-jafe yoo xamante ni yi jooytu nañ ko guddi jooy nañ ko bëccëg mais mënuñ ci gis benn yoon suñu bopp loolu mooy lan mooy Thiel commune Thiel actuellement arrondissement barke ji tey Thiel moo fi benn dëkk boo xam ne amul courant bu njëkk amul courant amul benn kaaraange ci wàllu sécurité bon amul tamit benn jamono boo xam bi ñu ngi ñuy jàppale ci wàllu suñ barabu jàngukaay yi loolu aussi suñuy problème la ci te ñu jàpp ne département Linguère tey boo génnee commune Linguère génn commune Daara tey Thiel moo nekk troisième. gi suñu loolu ñun nag liñ gëm mooy en tant que Thiel ñun pare nañ ci ne su courant ñëwul ba élection 2019 ñun Thiel danañ danañ banque suñ loxo Euh, mouvement Gomu Yaakaare ca Matam ña ngay waajal doxub ñaxtu bu yaatu ca diwaan ba nee nañ fukki fan ak ñaar lay doon euh, ci weeru mars ngir nag kilifa yi taxaw ñoom it ca jafe-jafe yi ñuy dund bokk na euh, ci ñàkkum jumtukaay talis furas Matam nag ne bëgg nañu daal ñu dimbali leen ci kër docteur boobee fa ne ndax lu ñàkk ay jumtukaay la tamit laata nag ñuy amal doxu ñaxtu boobu dina amal ndaje mu yaatu moo xamante ne nii dinañ ko def nee nañ rek ngir gën a nañu rek ci woteeg falum njiitu réew mii di ñëw ndax nee nañ la ca des bariwul kon kilifa yi nañu taxaw ci seen i jafe na mu gën a gaay pafara ñi ngëm mer bu futt lañu def ci nguuru Macky sàll bi loolu naka tax ne dinañ amal ab doxu ñaxtu ca bërëb ya ngir naka fexe ñu gën leen jox seen i gëdd mbootaay bi di góomu yaakaare Matam jàpp ne seen dëkk bi doon koo bàyyi ginnaaw. dañu am marche bu ngande Matam. Euh, le 12 mars mooy fukk fan ak ñaar ci weeru mars bi incha allahu bi ak benn assemblée général benn euh, daje bu mag pour waxtaan suñu biir le onze incha allahu rabbi fa am loo xam ni maatam mu ngi koy dund euh, pour ñun c'est pas normal. Matam Sénégal la bokk. par conséquent dafa am yoo xam ni jarul wax dañu ko waroon exécuter rek. du ñu ñàkk du ñu ay yàqkat donc marche bi dañu ko autorisé amul benn problème c'est autorisé. Matam di fukk ak benneelu région bi jàpp ne lépp la manqué ñii di organisateurs yi nguur yi sàmmontewul ak ay diggéem di ñaan nag ñu daal di tàmbali ci nu mu gën gaawee liggéey yi nga xam ne moom lañ fa bëgg. Euh, mbirum wérgu yaram mbirum accessibilité à Matam. mbirum protection de Matam contre le crues waa Matam bu ñu feebaree amul benn spécialiste bu fa ne on est dañu di la référer si yeneen gox yi alors que am nañu hôpitaux yi hôpital Matam bi dernier cri la hôpital bu moderne macha allah. tawata boo fa duggee avant ngay ñibbi oto bi day yàqu. bu dee sax yëkkatiwuñu benn menace waaye jàpp nañ ne askanu maatam kontaanuñu dara ci nguur gi. nguur population bi moo ko fi teg. chaque cinq ans au Sénégal dañu koy évaluer dañu koy natt moom ñu ngi commencé natt bi lii si natt bi la jàpp eh, lii jàpp si natt euh, action du gouvernement si natt bi la bokk dañ ko natt parce boo gisee population jóg di def ay marche dañoo kontaanu ku kontaan du def marche maintenant ku kontaan moom moom mooy voté boo kontaanul si nit ki est-ce ko votal ah loolu moom population Matam bi ñoo koy répondre man du si wax ñoom ñoo xam mouvement boobu góomu yaakaare Matam naqarlu ba futt ni nga xam ne noonu la ñu beddee seen région boobu di maatam li ñu bëgg mooy ñu delloo ko li nga xam ne moo nekk gëddaam Euh, Pape ñu wax nag euh, ci euh, njàng mi ak coordination nationale bi nga xamante ni moom moo ëmb étudiant yu Sénégal ca diwaanu Ndar nag la ñu doon waxee la leen naqari bokk na nag ci bourse yu ñu ne dafay tarde saa su ne loolee nag la ñu ne mënatuñu ko dékk kon kilifa yi nañu ci wax bu weesoo loolu tamit ndimbal li nga xamante ne nii ñi ngi koy jagleel université yi étudiants yi ndimbal loolu tamit gis nañu ni am na gàllankoor bu baax a baax ñu teewlu Franck Dadi Diatta moo wax ci turu étudiant yooyu ci micro Habib Seck. mu xam ni université yëpp booloo nañu pour nekk pour nekk benn am benn baat pour jàkkaarloog ñoom par rapport ak difficulté yi nga xam ne moo am aussi si si li ñuy wooyee ay accompagnement si li nga xam ne aussi problème de retard de bourse la mënuñu admettre état boo xam ne c'est un c'est un état digne de son nom ay paiement de bourse di dépasser au au delà de cinq à partir d'aujourd'hui coordination université yëpp dañuy exiger à ce que chaque cinq au plus tard ñu fay bourse yi fexe ba accompagnement yi ñu fay ko le plus rapidement possible ñu fexe ba subvention yi ñi nga xam ne jotaguñ seen subvention ñu fay leen ko le plus rapidement parce que xaalis bi ñun ñoo ko moom xaalis bi xaalis étudiant yi la am na loo xam ne fag médecine panier médical lañ koy wooyee loolu itam ñu ngi leen di ñaax ñu fexe nuñ ko fayee le plus le plus rapidement war yi ak dañu am na lu ñu fa seetlu loo xam ne dootuñu ko nangu étudiants yi am bus ay ay agent war yi di ko fayeeku injustement ñu ngi ñaan état bi tam mu jug si très rapidement bu ko deful ñun euh, très bientôt nous allons passer à la vitesse supérieure gannaaw jafe-jafe yi si yi jafe-jafe yi tukkee nag ci grève euh, jàngalekat yi rawatina yenn euh, syndicat yi réseau bi nga xamante ni moom mooy ëmb euh, jàngalekat républicain yi ñoom ña ngi koy naqarlu ca diwaanu Sigicoor nee nañ nag seen naataango yooye noonu xool daal neneen nu ñuy xeexee sopp doxalin te nañu nangu tamit nguurug Sénégal mi ngi def ay jéego yu am solo ci wàllug njàng mi kon lañuy sàkku rek mooy li nga xamante ni moom mooy grève yi ñuy faral di am saa su ne nañ ko ne tegg ci suuf loole lépp rek ngir mën a ñoŋal waxtaan waxtaan yi nga xamante ni nguur gi door na ko ak syndicat jàngalekat yi ñu teewlu ci euh, Fodé euh, Sonko moom mooy coordinateur réseau boobee ci micro euh, Boubacar Dias yi. grève bi quand même léegi mu ngi commencé yàgg mu ngi andi ay jafe-jafe ci école yi. dafa jigi dayo moo tax ñu ngi ñaan enseignants yi comme nguur gi fu mu ne nii mu ngi commencé andi ay solution ñu ngi fay ay rappel am na ay rappel yu yu daanu si ñaari weer yi ñu ngi fay ay rappel d'intégration ñu ngi fay tamit rappel validation yi ñu ngi koy fay ñu ngi fay ñu ngi andi tamit ay acte d'intégration am na ay actes yu génn yoo xamante ne vraiment pour enseignants yi nga xamante ne de 2011 à 2014 seen acte d'intégration génn na donc am na ay efforts yu bëri yu état nekk di def mais doyul dañoo bëgg euh, comme problème yi bëri na vraiment mu xool naka lay euh, régler problème enseignants yi maanaam lépp lu mu yoreel enseignants yi comme bor na fexe nu mu ko fayee nu mu gën a gaawee pour que ni ñuy mun a dellu si école yi ñu jàngale parce que tey école bi xale yi ñu ngi sonn sonn nañ bu baax a baax ci école bi parce que dañuy dem ñëw dem ñëw programme bi du jeex xale yi jotaguñu seen composition vraiment lu metti la alors moo tax ñu ngi lancé appel si jàngalekat yi ne leen euh, pour ñu trouver solution il faut que tamit ñu arrêté tuuti grève bi ñu mun a toog ñu xalaat parce que tant que ñu ngi bëgg a wut solution xeex bi muy continuer donc dina jafe pour ñu trouver solution Euh, ñu yegg ba fële ca Ribo Escale nekk nag ca département bu euh, Koungheul foofe nag askan wa euh, la nga xamante ne daal metti woon na ca ñoom rawatina ak wàllu wér-gu-yaram ba ci soxna yi nga xamante ne nii nag danoo rek tollu diggante daanam ay ci wàllu paju mi tey ji nag mën nañu ne jafe ba am na ci lu leen wan gannaaw lu ca mel ne nag kon ab ambulance médicalisée boo xamante ne jagleel nañu ko kon dëkk boobee dëkk boobee nekk ca Koungheul nu moo ko waxee jëwriñ ñi nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu wér-gu-yaram Abdoulaye ay Diouf Sarr moom nag moo fa jot a yegg euh, kon ba wax leen daal li nga xamante ni moom la namm ci wàllu wér-gu-yaram euh, maire ba nag rafetlu na loole bu baax a baax waaye ma ngay sàkku ci euh, jëruñ ji mu dimbali leen yóbbul leen foofe ab personnel de santé ndax loolee nekk na loo xamante ne dana koo yàgg ñaxtu rawatina ak bloc opératoire boobee nga xamante ni moom moo nekk ca Koungheul te soxla personnel loolu dañu fay fekk Ibrahima Diame. askanu Ribot Escale ak li ko wër kontaan lool biñ leen di jéebal ci loxol kii di ministre de la santé li nga xam ni moom moo di ambulance médicalisée bu bees tàq bi de ndax dina leen permettre rek coono yi ñu doon jànkonteel mu jëm ci wàllu évacuation maladie ak jigéen yu wérul yi ñu won ko gannaaw Yaya Sow moom moo di meeru Ribot Escale. monsieur le ministre gis naa li nga def ci ambulance yi département Koungheul nga jël quatre ambulances jagleel ko département Koungheul. na nga ne koolu Koungheul sedd ki ñu denk nag wallu paj mi rafetu lool teewaayam fii ci Rip Escale daal di rek féetaliwaat politique gouvernement bi am pour wàññi coono askan wi rawatina ci wallu ambulance. tey li ko la ñu nekk wax naa leen beneen yoon danaa dem kenn ku yëpp ambulance danaa dem beneen yokk seen ambulance danaa dem volet yokk seen ambulance. fépp foo xamante ne zone dëgg la ay ambulance baax na lool waaye itam am na leneen lu nga xam ni farata la mu dem ci wàllu personnel médical Yaya Sow kon mi ñaan ñu defal leen centre de santé ci gox bile di xamal ministre bi tamit ne hôpitalu Koungheul soxla na personnel rawatina foofule ci bloc opératoire ba. monsieur ministre bëgg nañ nga dimbale ñu aussi ci hôpital Koungheul bloc bi pare na. projet bi nga xam ne docteur Amar moo ko doon saytu ak sama najaay docteur Ibrahima Ka boobu pare na opération mën na fa nekka ñaan nañ la personnel nga affectal ñu ko nga xam ne suñ yëpp dana dekkaat Koungheul si suñ département. meeru commune bu Ribo Escale doon itam conseil économique social et environnemental doon nag amal lii di consultation gratuite ci ñaari fan yu nga xamante ne lu mot junni ak ñaari téeméeri nit consulter nañ leen faj leen gratuitement avant loolu nag lu mot ñetti junni doomu aadama meeru Ribo Escale dimbale na leen ba dugal leen ci couverture maladie universelle. jaajafal ko bu baax Ibrahima Diame ñu wax nag euh, ci li ñu nemmeeku ci xale yi muy lanu leen di sàqu di leen fëkk léeg-léeg euh, ñu faat leen di leen def nag yoo xamante ni euh, doy waar la loole nag délégué général bi nga xamante ni moom la ñu dénk protection sociale moom ma nga cee addu di fàttali rek kon nguruk Sénégal matuwaay yi nga xamante ne jël na ko ngir xeex loole mu juge fii Anta Sakh Diakho yëkkati kàddu yooyu rek ci bi nga xamante ne nag ma ngay dalal groupe d'appui pour l'action et la solidarité leneen nag nañu ko ci ndaje moomee lu ca mel ni la ñu nam muy fexe rek ba gën a dooleel soxna yi waaye seen bébé tamit mooy falaat njiitu mi la ñu wax Macky Sall ci atum 2019 Alassane Ba nguurub Sénégal dana taxaw jàmbarloog def kattu ñaawteef yooyu Anta Sarr Diacko xamle li mel teew ci ndajeb groupe d'appui pour l'action et la solidarité avertissement la jëmale ko ci defkatu kattu ñaawteef yooyu mu mel ni kon ñu ngi waajal jongante palu njiit réew mi seetlu bi mooy ay ndongo yi nga xamante ni dañ leen di def ay ñaawteef. lépp lu ñu remarqué rek mooy saa yu ay élection wala yu demee ni ay présidentielles dañ koy gis te muy jëf yoo xamante ne jullit ak ku dul jullit yëpp du sa jëf parce que faat doomu aadama ci jusque là xamuñu lan moo ko waral lan moo tax ñu koy def defe naa du lu rafet ci réew te loolu nag président de la république mi ngi ci yàgg taxaw te ci la ñuy taxawaat pour combattre ko pour képp koo xamante ne actes yu bon yooyu yaa ngi koy def bu boobaa dinañ la daan daan boo xamante ne defe naa dina nekk servir keneen ku ko warati def dootoo ko xalaat pour def ci ndajeb mi ni mel nag soxna yi ñu jiital leen mu mel ni kon groupe d'appui pour l'action et la solidarité gën na dëgëral taxawaayam li mu ci sàkku mooy fexe ba njiit réew mi amaat beneen nipp mandat. li ñu li ñoom ñun dañu def des GIE pour fas yéene liggéey en équipe pour fas yéene liggéey en équipe comme je vous dis c'est une politique de développement que politique. loolu moo ñu wutaleeg moom donc nous cherchons des bailleurs de fonds ñu ñëw appuyer jàppale ñu ñu liggéey parce que loolu moo ñu a jóg. li ñu gën a seetlu mooy jigéen ñi daanaka bu njëkkoon dañ nekkoon ci yëngu-yëngu yu ndawa a ndaw yoo xam ne rek pour mën a dund la waaye tey dem nañ ba génn nañ ci ñoo xam ne euh, seen dayoo koom-koom mën nañ ko méngale at ay PME wala sax lu ko romb tuuti te loolu lu am solo la lu mat a bàyyi xel mat a baaxee nit ñi fi teew ba ñëpp xam buur bi joxe nañ ko li ñu sàkk mooy fexe ba gën a dëgëral taxawaay yi bala 2019 di jot. mbootaay bi ëmb maire yu euh, Sénégal ñu ngi sàkku nag ci njiitu réew mi mu dooleel programme bi di PNLD ñu jegleel ko nag gox goxaan yi ndax jàpp nañ ni euh, kon euh, boobee programme mi ngi ci jafe-jafe AMS nag doon amal ab ndaje ca diwaanu Kaolack ñaari fan la ko def waxtaanee nañ nag tolluwaayu li nga xamante ne rek kon moom mooy liggéey bi nga xamante ne door nañu ko muy soqali kon gox yi naka noonu ñu ne kon bilan bi faaw rek ñu gën a doole ni ñu ko waxee gox goxaan yi rawatina ak PUDC ak CMU tamit xool nañu euh, def nañu taxaw seetlu ci programme yi nga xamante ne tëral nañu ko ci wàllu woowee ñu teewlu mbay Dione moom mooy secretaire général bu AMS ci micro Ibrahima Diame. xalaatee ne at mi tàmbali na ne dañu bëgg a euh, tàmbali suñuy activité président def nu wax ne tey de ren bu ma sañoon mu nekk année boo xam ne dañuy dem seeti maire yi parce que Sénégal yemul Dakar rek mu tàmm ci Kaolack nag ñu tàmbali jafe-jafe yi maire am yëpp lu ci bëri waxtaane nañ ko maanaam tolluwaayu ñi ñu fal le statut de l'élu maire bi ba ci conseiller bi ku ci nekk am nga ay jafe-jafe ci wàllu indemnité ci wàllu prise en charge loolu yëpp wax naa ne nañ ko d'accord nañ ci ne benn xeex lañ ko war a doon mu war a bañ doon adjoint maire yi waaye ak maire yi ñu bokk yëpp seen payoor ñu xool nuñ ko yokkale waaye surtout jëmmal leen ba reconnaître seen dayo innovation bi mooy ñëw dañu ñëw tamit ànd ak ay partenaires institutionnels ku mel agence bi nga xam ne président la république bokk na ci euh, xalaat yi gën a rafet ci mu am parce que nit boo wérul doo dara donc mu nekk programme boo xam ne ñëpp gis nañ njariñam waaye mu xaw a am ay jafe-jafe surtout ci fi ñu toll ci wàllu doxalin ñuy ñaax nguur gi mu gën ko dooleel parce que bu ko dooleelee dina yombal liggéeyu maire yi dina yombal liggéeyu président de la république. bi ci des ñu koy ñaax tamit gouvernement bi muy dooleel ay programme comme parce que ku xam waa àll bi xam ne PNDL def na résultat yu rek waaye at bi passé dañu gis ne euh, liggéey bi xaw na yéex te day sooxe lu bari bu PUDC defee pendel def foog naa ne waa àll bi lu bari dina kii waxoon nañ ko sànq ci euh, ponk yi muy nag campagne ñu njaayum euh, gerte mii mi ngi ne ci euh, jafe-jafe fële ca ñaxaar baykat yi ñoom ña ngay naqarlu ndax nee nañ ba nëga ni jaay gu gerte te nag nguur Sénégal la mu waxoon ñu jaay ko kon kilo ba lim ba néew na maanaam lim ko xayma ci kilo néew na lool ba tax na nag daal ñu ngi sàkk dimbali leen ci seen gerte googe ñu ne nag leneen ñu ngi koy naqarlu ndax baykat yi nga xamante ne ñoom ñooy féetee ca njagañaaw ñu ne baykat yooyu ñoom jot nañu seen jumtukaay ba tàmbali sax sax euh, waajal euh, maanaam euh, mbayub déwén bi Abdourahmane jàlloo lañ ci àndal ak mu Gueye ci caméra bi. weer ginnaaw bi ñu tàmbalee njaayum gerte bi béykat yu nekk ci ñaaxaar ñuy natt campagne bi lu bari ci ñoom nag jàpp ni jafe-jafe la ñuy am ngir gis kuy jënd xam nga béykat bu béyee boo gën lekku te mën da am fu mu ko jaay day doy waar lool fii mu ne sunu dëkk am na gerte goo xam ne ba tey jaayuñu ko jënduñu ko loolu am na boo dumantukaar tey am na gerte gu bari gu fa nekk kenn kenn jëndu ko te gerte xam nga bu yàggee noo rek day saxe bu ñu sañoon kay mu nekk ay deux cent cinquante waaw loolu mooy voilà trois cent léeg-léeg nga doxe ba ay quatre kilomètres ñëw jaay si fi mu ne amul xaalis tey nga weññeeku xam nga loolu it métti na ñenn ñi sax jàpp ni bi nga xam ni nguur gi teg na ko ci kilogramme gerte bi dafa tuuti bërëb boobu nag baykat yi tamit ay jafe-jafe yu tar la ñuy jànkonteel ngi xam ne ni sax bëgg nañu ay matériel waaye tamit lii di engrais. amuñu ay nag yaa ngi dégg amuñu ay nag war a mën a tos doo tool yi engrais lañu war a mën a am ba engrais bu engrais boo ko amee mu doy loo béy lu mu tuuti dana ah. jëriñ dara mais dañoo manqué engrais. dañoo manqué suuxatu suuf si. jafe-jafe daal engrais bu manqué rek ndax suuf si léegi boo ko defut engrais du mel ni mu war a mel. moom daal mooy indi jafe-jafe bi wante bu amoon machine ak engrais moom mën nañ béy ndax léegi mbéy mi moom boo amul ay tos amoo engrais amoo machine mënoo béy. ci jamono jooju ci njaga ñaaw foofu béykat yi ñoom jot nañu ay matériel ak li ni mel. lii dafa mos a nekk suñu jafe-jafe suñu matériel mbéy dafa màggat yàqu. bu suuf tooyee yow boo ñëwee mënoo jiw ñaari fan te sa machine yàquwul da ngay daw di ñëw loolu nag problème bu rëy la tey nag yàlla def na waa jig jam jóg nañu ba normalement lu mot 40 producteurs fii ci biir biir commune Fissel jox nañ leen machine njiw jox leen machine mbéy loolu nag wax dëgg na yàlla ñun kontaan nañ ci bu baax a baax a baax a baax. dëgg la sax campagne njaayum gannaaw gerte bi euh, ceeb bi euh, ci euh, Sénégal ak ceeb bi nga xamante ni moom la ñuy jéggaani la ñu ca xamle boobee ceeb nag nee nañ mbalit kese la mu ñu fi mu ñu fi indil directeur bu ISRA moom moo ko xamle gannaaw gëstu boo xamante ne def nañu ko ci muy gëstu bu yaatu ñu ne nag dara gënul ceeb bi nga xamante ni moom la ñuy bayee fii ci biir réew mi te ñoom nag ña ngay def seen kéemtalaay kàttan ngir xamal askan wi rek ne dara gënul li nga xamante ne nii moom mooy bàyyeekoo ci suñu réew am na nag ab séminaire boo xamante ne nii defoon nañ ko fële Déthié euh, Sali euh, El Hadj Traoré directeur bu ISRA ñu teewlu ay kàddoom euh, ci micro Abdourahmane Diallo. ñun dañu am dañu faral di importer ceeb maanaam di di di jegaani ceeb bitim la di ko indi fi ceeb ñu gën jegaani nag ceeb bi nekkul ceeb bees dafa nekk ceeb boo xam ne ñu ngi koy jaay dañuy lekk ba doy door a jaay li des kon duñu jaay mukk li nga xam ne loolu ñu soxla kon ceeb dafa nekk loo xam ni ñëpp la soxal ñun Sénégal dañuy jéem nag léegi béy ceeb pour mën ne daal fexe ba li ñu soxla ceeb ñu mën ko béy fii wala boog béy ci lu bëri waaye li am solo mooy li ñu fiy béy fokk Sénégal yi bëgg ko donc suñ ceeb suñ ko béyee fii comme dafa nekk ceeb bu bees bëgg la ceeb bu xaw a màggat donc togg mi ak guub bi du benn donc dafa fexe rek donc laaj na ñu fexe ba Sénégalais yi xam ne ceeb bu ñu togg fi njëriñam mbaaxaayam ak ni ñu ko war a toggee moo tax ñun ci ISRA suñu def suñu sélection maanaam suñu jéem a ci ceeb ba xam ne yan xeetu ceeb moo fi baax dañ ciy boole béykat yi ak ñi nga xam dañuy togg maanaam béykat yi ñu xool ñoom ci mbirum mbéy ban xeet moo leen gënal ñu mën a gëstu boobu mën ko lawal euh, fekkee nag ni toogkat dañ leen suñu nee ba ba ba góob ceeb ba ba bojj ko dañuy fexe aussi ñoom euh, toogkat yi ñu xool ñoom ci seen ci seen biir ban ceeb moom méngoog li ñu bëgg seen bëgg-bëgg ci xelu ci togg ba xam ne bii boo ceeb soo ci defee ndox nong na ndox la nongul ndox Euh, est-ce que neex na est-ce que dafay am na gomolo la déet ñu ni bii kat moo ñu gënal ñu mën ko mën a fuural ba telle sorte que na tax ci Sénégal euh, ceeb bi ñu nar a béy fii mën a méngoo bëgg-bëggu Sénégalais yi bu ISRA doon àddu ci micro Abdourahmane Diallo mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen di jégalu rek euh, ci xët yu njëkk yu yéenekaay ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñi fare ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar bu mu sotti rédaction bi digg na leen daje ci yeneen jotaay xibaar ñu leen ñaanal kenn dalug jàmm.